julli si yonent bi ñu ngi sant ñaari waajur di wax 5 tonnes benn ndaw la bu jël 1997 sixième mois troisième jour hôpital Ndamatou di wax 5 tonnes international 5 tonnes mi xew 5 tonnes mi gars yi bëgg 5 tonnes mi nga xam ne xam nga xale yi moom la topp ndax fi mu lu ne laa gis man jigéen daf may woo ma 5 tonnes kaay laal kon nga xam ne xew mën na lu ne <laughs> walaay lancim mu ne ma 5 tonnes dama laa bëgg bu <laughs> pour ragal. non ragaluma mais ay nit dañu seetaan te seetaan la mooy kaay laal quoi mooy pour ma laal xam nga. la la pour xam nga xam daal affaire moom léegi yomb na trop. gars yi comprendre ñu de ma ne lan la la wax nga ne. waaw dana

caaxaanul. billahi wallahi taalaay mu ne ma 5 tonnes ma ñëw sa kër nga laal ma. ayca ma commencé 5 maa ngi la fekk tin bitik ak yooyu. ayca jërë ngeen jëf mbokk yi kon 5 ni ma ko waxee maa la fekk fi nga xam ne moom moo di tin bitik nekk ci centre commercial u Khadija ci kaw ah di jaay li nga xam ne moom moo di tiis yoo xam te ni képp koo xam te ni da ngay xew mbaa ngay mariage mbaa ngay ngénte bis boo fi ñëwee ñu jaay la pili yoo xam te ni prix moo xew ci jamono nouveau modèle la bari na ci ay ndaanaan yoo xam te ni ndeke da nga leen di gis ci réew mi ndeke fi la ñuy duggee fekk la fi nga daja fekk tamit ki nga xam ne ki nga dajeel buy Viviane Viviane waykat bu mag bi waaw Viviane xam bu mag bi vraiment ne sooy dund da nga war a oublier dem fi nga xam ne tey ñi ñu wax ne ay boromi daraja lañ nga dem fi dem quoi vraiment fii moom wax dëgg yàlla soo fi ñëwee tise boo bëgg si àdduna rek vraiment dala koy jaay surtout boo xama boo waree xew wala tey nga soxla moo loolu yëre bu am classe daal vraiment muy pochette muy dàll boo ñëwee fii ci tin bitik xama ci centre commercial Khadija vraiment koo laajte duud rek dala koy wan quoi waaw xama vraiment nekk na nit koo xam ne daal boo bëggee dégg-dégg waa ay qualité lay jaay quoi yére yu baax bi mu fi mu njëkkee ñëwee keroog fekk naa fi ñoom titi xama fekk naa fi ay jabar champion yu mag xama ku mel ay la waaw laa ko jëndalee yére yi ma ko jëndal waaw fii laa ko jëndalee ah, ak seen xew ak seen mariage fi ngeen di waaw fii la ñu waajee yaayam tamit jëndal naa ko fi ay grand bu ku ci mel ma ko ci tabaski gi maa ko yoral ay grand bu incha allahu rabbi quoi waaw ñaari grand bu neex yàlla suñu borom yaay fës yaay giri Gris Bordeaux yaay Gris maa koy rel ñaari garaam bu bu neexee yàlla suñu bor ak ay collègues yëpp incha allahu rabi waaw. tey nga woo ne ma daa am loo xam te ne da ko bëgg a mooy ñenn ci ñi nga xam ne waa Guédiawaye dañ la ci woo am lu ñu la wax nga pare pour def ko lan la. waaw mooy li ma la wax man isaan toll yi dama pare pour Balla Gaye 2 daan Tapha mais loolu la koy fekk mooy dama ne la barke Muhammadu Rasulullah Balla Gaye 2 la ma la waxoon laa lay wax barke alquraanul karim mais su ñëwul sama yoon nekku ci mais dama ne la li ma la wax ne fu leer laa ko tax c'est clair et barke Mouhamad mais instant yi pour l'instant ñu ngi wax sax mais suñ ko confirmé barke Mouhamad ba Tapha ngi wax de. dama ne la barke alxuraanu karim su ma ci duggee Balla Gaye 2 su nañ ma génn Touba ma dëkk. sama kër gi ma dëkk hôpital Ndambar wetu jumaa ja ma jaay ko génn bu ko jaay sax dañ li wax doy na war de. ma la wax c'est clair et net. adduna lay seetaan de. dama ne je suis jeune li may wax je suis fier pour wax la ko dama ne la Balla Gaye 2 barke Muhammadu Rasulullah laa la waatal barke alxuraanul karim man sengotoon ma dugg si combat bi su daanul tafaatin ma xàcc yoonu murit am déet wala am looy déggee te su ma ci duggee ah damay carte comme comme neex nga ñëw ñu carte. oto oto million million ñu ñu ñu ko. nga xam ne si daa am luñ la wax luñ la dee la wala lan la. lu wér lañ ma wax lu wér lu clair et net booy kii ma wax ni dab dañ maa nga wax de avant combat saa kees ay combat ay combat te du du nekk luy hasard lu échec lu réussir lu normal. yow am nga ñooy waxal ci waa kër Balla Gaye. waaw. mais waa kër Tapha Tine woowee. non laa dëkk mais nag suñ ma wóol garde notre laa ci taxawee de parce alxuraanu karim. barke Serigne Bamba Mbacke laa la waatal Tapha Tine pour l'instant billahi bu combat bi nekkoon suba mu duma Balla Gaye barke alxuraanu karim bu combat bi doon suba suba suba barke Muhammadu Rasulullah Balla Gaye waa Géejawaay dañu reer hmm? dof man lu ma lay wax dafa am fu ma ko leer c'est clair comme li ma wax ne comme arrangé ça ne intéresse pas comme arrangé wul ça intéresse pas man li ma intéressé laay wax mais dafa doy war jaaxal sénégalais yu bare bari ñii ngi naan cinq sëriñ la ñii ngi naan daa am koy dee ngi naan ndax tamit mën nañ la ko xaw a nungul ndax da nga ko wax ci Eumeu Sène ak ki nga xam ne moom moo di Sa ko njëkk wax yow Modou Lo Ama Baldé laa ne la Modou Lo day daan Ama Baldé te da koy wër quatre appuis lay def war ndomba loo ci laa ko njëkk wax. yaa ngi dégg ma ñëwaat Gris Bordeaux Balla Gaye 2 ma waxoon la ko. wax la ko Tapha Tine Eumeu mais kon tey su ma amee lu leer ci Eumeu Sène Sa Thiès wax ñëpp dégg ko ça c'est ça c'est parce que ça na ñu la ci woo Géejawaay. oui bari na bari na bari na bari na du ma ne ay kilifa. am na benn benn kilifa goo xam ne barke sëñ Tuubaa dafa bëgg Balla Gaye de nekkul sax Sénégal daf maa téléphone mu ne ma 5 tonnes te moom dañoo jëflante quoi mu ne ma 5 tonnes man pare naa pour jox la 2 millions nga jàpp si combat bi mu ne ko non <laughs> yooyu daal yooyu jóg quoi. lan a jóg. non moom moom Balla Gaye 2 xam na Assis Ndiaye xam na Baye Ndiaye xam na Assis Ndiaye mooy sama numéro maa ngi numéro Balla Gaye mooy sama numéro maa ngi numéro ñeneen ak ñeneen ñu ngi sama ne maa ngi seen numéro on est mais dama ne la barke alxuraanu kër bu ma si duggee 5 tonnes makat barke alxuraan kuy prier boo gisee ne 5 tonnes déggu na si combat bi barke alxuraan boo yore kayitu kër teg ci. Hmm? billaahi wa saa yoo déggee ne 5 tonnes dugg na si soo yore soo tegal xam ne Balla Gaye day daan tafaatin. nga ne Balla Gaye day daan tafaatin. barke non bu ma si duggee ah dama dama lay wax su ma ci duggee laa la wax. boo ci duggul ah su ma ci duggul ça n'intéresse pas <laughs> sama nekku ci lu <laughs> ma ci mën a débat. am waxal waa kër Balla bi. am na ñu may waxal du ma sëriñ balaa gars yi jàpp ne ab sëriñ tereyaax laa pour di am lu explique quoi am fu leer fu ma ko teg quoi. yow amoo sëriñ mais da ngaa xam sëriñ su baax. <laughs> booy àdduna yàlla ko moom dama ne la ñi ma fi tëkku ñëpp génn nañ dëkk bi fii lu waaye loxo def loxo da koy dindi. booy laisse tomber àdduna yàlla ko moom alxuraan mën na lu ne <laughs> laisse tomber barke alxuraan karim bëri bu feesee. du yëngatu sëriñu internet yi di sóob di génn. di xaaj xamuñu dara. non ma ñu indi fi ay ay bay saakees combat xamoo dara duñu daan saakees xamuñu dara barki alxuraan saakees ñi ko a daan mooy sëriñu fonkaleer dañuy sóob dem ci filaawo yi wut say ay faftan xaañu ñëw def interview sot say affaire ak sa non dañ maa téer kenn fii di ko xam ah, xamuñu dara barke Serigne Fallou Mbacke ko xam dara foo dem dañu acc kaw billaahi wallahi makan man man dama par personne du mu Serigne Tariya ah mais man su ma defee samay limaay def lekk seen xaalis na benn gaan démb dama wóor ñoo ko lekk hmm? barke alxuraan barke Serigne Touba ñun sëriñ ñi ne ci TikTok barke alxu mais da nga naan am na ñu man comme ay sëñ Cissé sax tane ay sëñ Cissé borom yëmbal comprendre waaw sëñ Cissé borom tawfeex kooku tane mais à part ça mënu ma la beneen comme xam ñeen nga xam ne ay sëriñ lañ ay sàmm nduur ay sëriñ lañ mais sëriñ di ñëw isaat di xaaju di def ay interview naan non ba ma indee diw boo mënoon dara yow di ngeen sa ñu daan nga ñëw isaat ñu téela comme dara dina wax da noppi daan nañ sa mbër xamuñu dara dañuy nekk fi nax ñi nekk ci réseau nañ bàyyi yooyu nit ñi dañoo sonn ci loolu. lan mooy am nañu am nañu am nañuy nekk ci réseaux sociaux yi man. waxuma la ñu man li ma la da koy mën a fay am looy déggee nga jël téléphone te micro teg ko foofu dama ne la nañu bàyyi nax ñi nax nit ñi dañoo sonn. dañ surtout ñu nekk séeréer dañoo sonn dañ leen a naxa nax ñu nekk séeréer barke alxuraan dañ leen a nax ba ñu découragé démb am na ko ma woo barke alxuraanu góor góor faal xaw ma te mu nekk fii euh, Turquie barke Serigne Touba 500000 am lañ nekk sama numéro lijjanti waxal ma barke alxuraanu karim di ma ko wax ak ma sama ndey barke alxuraanu karim billaahi wallaahi azim dafa ma métti mara bi nu mel ku mag la ci réew mi ci du dara naxaadaka la ji di sóob di dóor xamu dara. ci làmb ji la ne ci la ne xamu tus bala maa dem mu defay interview di nappaate du dërëm xamu tus. non boo waxee ñu làmb ji amit te jub barke Serigne Fallou Mbacke xamul dara. man wóor na ma ne duñu dóor. barke Serigne Fallou Mbacke ñi nga xam ci làmb ñoo dàq dóor. waa jaa ngi nii barke Serigne Touba wallaay azim barke alxuraan karim billaay wallaay dama lay non non bul teg vocal bi. ah. jaru ko jaru ngay teg vocal dama ne. non man expliqué ki dama. non moom da wax jaru ko jaru teg vocal non jaru teg vocal. dama expliqué xoolal mu ngi ni góor góor góor gi góor góor gi Fall da barke alxuraan Dubaay Dubaay la nekk dañoo lekk téeméeri junni. barke Seydina Mohamed dama ne la loolu dañ ko war a bàyyi ma loolu dama metti lan mooy problème bi. nañu dimbale te yàlla te xam ne sonn nañ nañu bàyyi réseaux yi nekk affaire yooyu noonu quoi comprendre nga di si di si di si di si di nañu dimbale te yàlla tax mm-hmm. kenn ku ne mën nga liggéey liggéey liggéey mais da seet sa taraay bàmmel mais am man ma kan am nañu man loolu maa ngi ñëwal naan ñëwal bu ma sës si bi waayow mm-hmm. barke alxuraan ñi gis fii ñi ma gisoon keroog ñu ñëw isaat indi mbër barke alxuraanu karim man cinq tonnes dama part personnel koo ma ci boole mënta mënu maa jox tànk bi métti barke billaahi mën naa teg simi sama tànk ñu simi ko ñoom ñooñu xamuñu tous na ah? kan mooy borom kagul bi bi ànd kan ay bàyyi ma waayo nga malal dama makan makan xamuñu tous nañ bàyyi naxaate bi te ñu te ñu xam ne xam-xam borom kagul bi ànd ak sa Balla Gaye nañ génn si gis nga nan daal nañu jàppale te dimbaluñu te yàlla tax comprendre ma la mais sonn nañ c'est houteux barke alxuraan Balla Gaye 2 sax maara fokkaleer yooyu mu indi moo tax du am dara nañu bàyyi yooyu waaye sëriñ fokkaleer yi ñëw di iso am ñu ay booy ay maara ma yàlla baal ay so ay kese lañ am nañ sëriñ ñu ñaan xam billaahi wallaahi wa taalaay maara yi ma gis fii indi ay Balla Gaye sax am ko ci mi di bind xañu dem wut say sungufu sungufu dem ci ministre bois yi mooy sungufu su mokk non non ministre bois yi non non sungufu ministre bois yi mokk yi la ñuy jël di ci nappaat di xañu di wax di sóob xamuñu dara. sungufu ministre yi barke Serigne Fallou Mbacké mais nag am na ci am am ci yenn mara yoo xam te ne tamit suñu borom may na leen li nga xam ne moom moo di xam-xam. makan man am naa góor goo xam ne barki alquranul karim bu ne moon makan day dee suba billahi wallahi du ma ci teg baat ma xam ne da ngay faatu. barke Serigne Touba ta xamoo ko. moo lay wax loolu ça n'intéresse pas mais dama ne la kooku bu ne moon makan day dee suba ak ma suul sama nday billahi ma jënd la perkaal. waaw ok xam nga di santaat daal comprendre di wax daal fi ma fekk nii mooy gu xam nga góor <laughs> waaw tin bitik waaw vraiment comme day Tapha Tine la daal <laughs> non dañoo bokk sant rek ak sant lañ <laughs> nga mais mais tin qualité lay jaay dégg naa bi ngay xew moo la bi may xew moo ma jaay bi may xew ma yoroon yëpp moom ma ko jox xam nga mhm. gis nga zone bi moom ma jox ma même sama xew moo ma jox yére mhm. ñëw sama ngénte mu joxaat ma ay yére mhm. te moom qualité lay jaay quoi vraiment xam nga non vraiment gisoo fës lim xam nga incha allah rabi moo ngay tax le barke alxuraan yëre fi laa ko Gris Bordeaux yaayam maa koy waaw vraiment mais mais ci centre commercial Khadija. centre commercial Khadija boo dikkee magasin nga rek ci centre commercial Khadija boo yëgee première waaw première rek nga yëg rek boo ne euh, ñu wan la place bi quoi. yemut tamit nag ci jaay tisi kase da jaay saak jaay la dàll. waaw jaay saak jaay la dàll xam ak tisi boo mën a bëgg si àdduna jasneer palmaan tise bu seer xama di la war comme fu ñoom ay fifiaan di ñëw ay ñoom titi ay jabar di wax gars yi nañ gën a góor xam nga te xam ne daal vraiment ñi jaay lu baax ñu ngi ci dëkk bi comprendre nga vraiment jàmbaar la quoi vraiment boo fi jógee daal xam naa ne di nga xam ne ay bagage yu baax a fi nekk quoi tax fu ne du jóge fi xam nga vraiment daal